وفقكم الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi santaat suñu boroom bi nga xam ni moo wàcce téere bu tedd bi mu ñu jagleel mu nekk yoonu njub ñeel ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla waaye mu nekk yoonu xalaatiin ñeel borom xel yi xalaat mu nekk yërmaande di xuppaate ñeel ña nga xam ne dañoo gëm muy saafara la nekkoon ca xol ya ca bokkaale ya ak rëy ya ak iñaan yaag ya ca des ñi ngi koy sant suñu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ca yonente ba nga xam ne moom dafa jëloon alquran daal di koy jukkoo mboolem jëfi ni addunaam yépp mu dëppale koog alquran waaye ak sahabaam yi nga xam ne ñoo doon jàng ci moom alquran di boole jàng ga ak jàngaale nañ koy jëfe di ko jëfe ñi ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla gërëm leen te gërëm ña nga xam ne ñoo topp seen yoon ca baba yawmi diin ay yéen mbokku jurit ngal na waaye nañu ragal yàlla waaye nañuy sant yàlla ni ñuy boole ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole ñu ci xeetu alquran bi nga xam ne mooy njub gi ñuy tax a texe di kóolute gi nga xam ne yàllaa ko garantil ba baa bis penc di taxaw neen du ko jóge ci kanam du ko jóge ci gannaaw sunu borom yàlla daal di ñu koy wattul ay yéen mbokku jullit nañu xam ne jullit ñi ci waxtu wu nekk ci place bu nekk bu doon ñu ngi seetantal téere bi yàlla bi di xool lam digle ñu def ko lam araamal ñu bàyyi ko texe dana leen ëmb texe di dana leen sori sunu borom yàlla waxoon na ko depuis sunu bay aadama na ko demal yàgg sa njaboot ci kaw suuf heure bu njub dikkee jóge ci man koo xam ne topp na ko du réer waaye it du texee di mbokk téere bi yàlla baa ngi nii sunu borom yàlla wàcce ko ngir ñu koy jàng di ci xalaat di ci waaru di ci taxaw borom bi subhanahu wa taala mu ne maa ko barkeel ngir borom xalaat yi kat yi man cee nekk di ci xalaat waaye sunu borom yàlla wax na it ne jaamam yu bari moom moom lu tee ñuy xalaat ci alquran wala boog seen xol yi dafa am xomb yoo xam ne ay kannaar yoo xam ne ñoo ko tëcc ay yéen mbokk jullit sunu yeneen ci day bari woon na heure bu lajeeg jullit ñi ci jataay yu mel nii daawul paase ak ñoom lu dul jàngal leen alquranul karim loolu moo tax ba da ngay gis ne ñiy solo hadis solo nañ ci benn soxna boo xam ne mi ngi tuddoon ummu hisham ummu hisham boobu nee na man de mokkal na saar bi di qaaf wal quraanil majid ca kenn jàngalu ma ko man ko mokkale ci bari waay gi ko yonent bi alayhi salaam doon bari tari ci kaw minbar bi loolu rek ca laa ko mokkale mu lay wan ne kon jigéeni démb daanañ dem juma di déglu imam mbokk xaaf boobu yonent bi alayhi salaam fonk gum ko fonkoon tax mu ko daan bari ci jumaa yu bari mu ko cay tari noonu it lañu solo ne bari woon ne di ko jàng ci jullik fajar noonu it la Omar ibnul Xattaab nettalee bari woon ne di ko jàng ci tabaski ak korité ngiree saar la boo xam ne dafa ëmb ay mbir yoo xam ne yu màgg la yoo xam ne dana won doomu aadama bi la nga xam ne mooy cosaanam la nga xam ne mooy mujjam ci àdduna lan mooy njëlbeenam ci àllaaxira lan mooy mujjam ci àllaaxira jëkk dal ci ñi nga xam ne dañoo weddi ab yonentam weddi ne dee dëkk amul banaan ndax ñun bu ñu dee ba nekk poussière daan ñu dekkalaat sunu borom nee na ñoom day ñi ngi ci mbir yu jaxasoo te na am bokk julit ba ilaa yawmi diin képp koo gis mu weddi bi su penc ay mbiram day doon loo xam ne mbir yu jaxasoo lay doon borom boobu nag di leen tontu ni xanaa xooluñu asamaan bi nekk seen kaw li nga xam ne ñun yàlla noonu lañ ko tabaxe nan lañ ko taarale ci ay biddiw noonu lañ ciy def ci lépp luy waare waaye suuf bi nga xam ne ci lu ñu nekk xoolal ni ma leen ko tàllale sampal leen ci ay montagne génne ci ay millions ci ay façon gàncax ak i garab lii lépp day ak pàttali ñeel na ci bépp jaam boo xam ne day dellu ci yàlla subhanahu wa taala man yàlla maa wàcc ndox mu barkeel génneel leen ci la nga xam ne moom mooy tàndarma ya ak bépp façon meññeent boo xam ne nii da ngeen koy xéewloo suñu borom yàlla mi am kattan génne loolu ci suuf bu dee woon loolu ki ci xalaat da nga xam ne am na kattanu doomu aadama yi dugg ci biir suuf heure bu ko neexee mu génne leen borom bi wan ñu ay xeet yoo xam ne dañ fi jaaroon di weddi dee dëkk amul sunu borom yàlla digoon leen mbugalu àdduna avant mbugalu àllaaxira ñoom ñépp yàlla mbugal na leen mu lim ci ña nga xam ne ñooy xawma nuux lim ci ña nga xam ne mooy xawma luut lim ci la nga xam ne nii ña ci mujjoon mooy firawna ak ñu mel na moom mbokk saar bi nii la ñuy demee di ñu wan yow doomu aadama ana lan mooy nekk sa cosaan ay julit foo toll del bàyyi xel fan laa jóge fan nga jóge benn waxtu la neexoon sunu borom yàlla mu ne man kat maa ngi bind Moodu Njaay wala Fat Caam tànn la xool la ko neex mu def la ko góor nga wala jigéen xool na ko neex mu melal la ko ni nga mel kenn melu ko ci kaw suuf borom boobu kon moo la bind moo la bind ak kay moo taxit moo la xam moo gaa yi portable yi ñu yor jël ay piisu Sonatel def ci masalan da ngay gis ne lépp loo xam ne ña nga ko cee wax xam nañ ko boo jëndee crédit ñu jox la bu crédit bi jeexee ñu ne la jeex na foo mën a toll tey jii mën nañ la faa localiser waaw ne dem doomu aadama moo man loolu ci moroomu doomu aadama ana yàlla mi bindoon doomu aadama may ko xol may ko xel ay kon borom boobu mu ne xam naa la nga xamee ni nii moom la doomu aadama di xalaat avant muy wax la doomu aadama di wax lépp looy xalaat bal la nga xalaatagul yàlla xam ne lépp kon doomu aadama nga bàyyi xel loolu foo mën a toll ci heure booy wax nga xam ne yàllaa ngi may dégg heure booy jëf yàllaa ngi may dégg la ma nëbb sama xol ci yéene yàlla xam na ko te sunu borom yàlla yemul foofu ak ñun mi ngi ñu booleeg malaaka yoo xam ne ñi ngi remplacer ci ñun ñaar suba ñaar ngoon di wattu lépp loo xam ne def nañ ko yowmal qiyaama ñu daal di ñuy indil suñu téere gannaaw ba mbokk saar ba wëlbatiku ak ñun jàngal ñu étape yu rëy yu nekk suñu kanam gannaaw ba mu ñu jàngalee étape bi suñu gannaaw muy fañ jóge mu ne bis mi ngi ñëw yow doomu aadama sukuraat dikkal la ci dëgg sukuraat boobu mooy lan mooy frontière bi nga xam ne fa la sa dund yem mu ñëw war laa teqale ak sa njaboot war laa teqale ak sa alal war laa teqale ak bépp daraja boo xam ne amoon nga ko ci kaw suuf ministre nga am directeur nga war laa jox tur bu ñuy tuddee ab niiw su ko defee borom bi ne lii nga nekkoon di ko daw yow doomu aadama donte ne mënuloo ko daw abadan mbokk kon dee mi ngi noonu daal di ñëw ci doomu aadama mu commencé gis loo xam ne daaw ko gis mi ngi jàkkaarloog malaaka yi mi ngi jàkkaarloog mbiri borom bi gannaaw ba sunu borom tëb bàyyi étape boobu daa di ñuy indil beneen étape boo xam ne moo gën a màgg dee te mooy bis li nga xam ne dañu wal ci biir béjjën bi yàlla indi yowmal qiyaama bu ko defee doomu aadama yépp daa di jóg taxaw sunu borom yàlla subhanahu wa taala daa di wane ne képp kenn ci ñun dana am ñaari malaaka yu koy escorté di ko taxawal ci kanamu borom bi subhanahu wa taala mbokku borom boobee da ngay gis dana sant malaaka yi ne leen jàppal leen ma kulla kaffaarin anid képp koo xam ne da doon weddi boromam dëgër bopp ba ñu dégg ay ndigalam daan tere la nga xam ne mooy jëf ju baax beewoon ci kaw jaamu yàlla yi daal sikki sàkk ci alquran sunu borom mu ne sànnil leen ma ko ci biir mbugal ma mbalaaka yu commencé di jàpp di sànni di jàpp di sànni ba baa ay millions ba baa ay milliards su ko defee sunu borom yàlla dana laaj sawara ma sawara ndax fees nga sawara daal di lem ña fa jot a nekk na yàlla dolli ma ci yéeféer yi loolee mbokk kon ngir ngi mucc ci sawara fexeel ba bañ a bokk kuy weddi sa boroom bañal bokk kuy dëgër bopp heure buñ ne laa lii la yàlla santaane masalan jigéen dafa war a muuru da nga war a dem di julli ci sa mbooloo mu yow góor bayil riba bayil la nga xam ne mooy carte nga bañ a doon ko dëgër bopp ay nga déggal sa boroom waaye itamit ngay góorgóorlu ci xéewal gi la yàlla may nga bañ koo yemale sa bopp nga bokk ko ak jaami yàlla yi subhanahu wa taala bañ a doon it kuy tooñ kenn li day boo ko defee da nga mucc ci sawara yal na yàlla musal ñu ci sawara waaye mbokk gannaaw loolu la suñu borom yàlla di indi nag benn beneen wàll gu safaanoo ak gim ñuy nett bi daa ñu ne malaaka yi nañ ko indil aljanna ñu jegeel aljanna ñeel ñan borom bi subhanahu wa taala ne ñeel sama jaam yi nga xam ne dañ maa ragaloon sama jaam yi nga xam ne dañ maa ragaloon lan mooy mandarga ragal yàlla sunu borom mu ne mooy li kulli awaab mooy waajoo xam ne day bari di tuub di dellu ci yàlla heure boo xamee ne nii jàq na ma nga dellu ci yàlla subhanahu wa taala waaye xafiis koo xam ne ma ngay wattu ndigali yàlla yi di wattu tere yàlla yi du sàggani ndigal ya du sax ca tere ya borom bi nee na mooy man xashiya rahmaana bil xayb ki nga xam ne dafay ragal borom yi bi borom yërmaande boobu na doon mi ngi ci mbooloo mi wala daa wéet na doon nit ñi yëg nañu wala yëguñu waaye wa jaa bi qalbin munib mooy indi xol boo xam ne yàlla rek a ca nekk yàlla rek la gëm yàlla rek la yaakaar yàlla rek la toroxlu amul keneen ku muy yaakaar ku dul yàlla sunu borom mu ne borom ku mel noonu day nga xam ne xolam ba sell na ay jëfam sell na. ma ngay tudd di dellu ci yàlla ñu mel nii de bu ñu ñëwee bokk na lu leen malaaka yi di teeroo mooy udxuluha bisalaam dem leen dugg àjjana ci jàmm ay kenn du leen mbugal kenn du leen fitnaal ca it lii mooy bis boo xam ne du jeex ba faw mbokk bisi àdduna lum yàgg-yàgg day jeex noosug àdduna lum yàgg-yàgg day jeex amma yowmul xuluud bis boo xam ne du jeex ba faw ca xéewal ya ca ngóor ga ca noos ya mooy la nga xam ne moo lay xaar ajjana suñu borom yàlla ne lahum ma yashaauna fiha mu ne foofu loo bëgg am ko mbokk ajjanaa ngi noonu loo bëgg boo ko ñaane yàlla ci saa si lay am ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax sax ku demoon ajjana ci amoon njaboot soo ñaane yàlla ci waxtu wi ca ngay daal di am njaboot bu dee jigéen a ca lay ëmb wasin la ko soob ci doom yi juddoo ajjana bu dee góor a ca la koy soxnaam di utale doom yi jëm ajjana jëm doom yi cosaanu ajjana gannaaw loolu amul lenn loo xam ne sa xel dana ca dem nga ne subhanaka allahuma lu dul loolu daal di teew sa kanam lahum ma yashaauna fiha mbokk li Obama président Amérique amu ko Hollande président France amu ko milliardaires yi gën a kawe amuñu ko ca mooy koo gis ci ñoom am na lu ko jaaxal ci àdduna am na lu mu bëgg amu ko amma soo bëggee loo bëgg rek mu daal di sotti góor-góor loolu ba tabbi ajjana yal na yàlla tabbal ñu ajjana mbokk gannaaw ba suñu borom yàlla ne wala day naa mazid daan fekk lu ñu bëgg ci biir ajjana daan ko am ba pare daan fa fekk loo xam ne xalaatuñ ko woon abadan yonent bi alayhi salaam mu ne ajjana mooy lan mooy maa la aynun ra'at wala uznun sami'at wala xatara ala qalbi bashar àjjana la fa nekk kenn mësu koo gis kenn mësu koo dégg kenn mënul xalaat ba xalaat nu àjjana mel loolu mbokk mooy xaar ñooñu yàlla waxoon sànq sunu borom yàlla subhanahu wa taala dolli ci it dana leen defal al mazid te mazid boobu naka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñettale mooy sunu borom dana wax waa àjjana hël hël raditum moo waa àjjana ndax gërëm ngeen ñu ne ko ah kay gërëm nañu suñu borom jox nga ñu lu ñu xalaatul woon fooguñu ko woon borom bi ne danaa leen dolli ay suñu borom loo ñuy dolli mooy bis ni ki tey gërëm naa leen dootu ma leen mere ba faw lu leen neex def leen gaa yi kon mi ngi noonu liberté bi yéefar yi bëgg ci kaw suuf jàpp ne lu leen neex rek dañ ko war a def yow jullit mi ngi lay xaar ajjana soo góorgóorloo ba tàbbi ajjana sunu borom ne leen lu leen neex def leen gërëm naa ko lu ngeen bëgg ñaan leen ma may leen ko mbokk loolu muy aljanna gannaaw ba suñu borom dana leen woowaat ay yéen waa ajjana ndax gërëm ngeen ñu ne ko ah kay suñu borom gërëm nañu mu ne dama leen bëggoon a dolli ñu ne ko noonu ñuy dolli mu dindi barrage yi doxal suñu digganteeg moom juliti ajjana yépp jàkkaarloo ak suñu borom jalla wa ala loolu mbokk da ngay gis may ndollante bu gën a màgg ci ad ci ajjana lii suñu borom mi ngi koy waajal ñi ragaloon yàlla ñii dellu ci yàlla ñii wattu ay ndigalam ak i tereem ñii toroxlul yàlla dellu si ci moom ci xol boo xam ne benn bokkaale ci amu ca suñu borom nee na bégg leen lii day mooy la nga xam ne moo leen di xaar loolu tax suñu borom mbokk bi mu ñu waxee ñun ci saar bu màgge bi mu ne nag lii day ak fàttali mi ngi ci ñeel koo xam ne am na xol bu muy xalaatee wala mu mën a déglu ca bi muy déglu mi ngi teewal ca mbokk lii mooy alquran bi nga xam ne daa war julit buñ ko taril xolam daal di beesaat xolam daal di yënguwaat te loolu moo tax ñu taamu tey fàttali ko waat xutba bi nga xam ne yonent bi alayhi salaam daana ko xutba lu baree baree baree bari ndax weeru koor bii di ñëw suñu xol yi mën a dundaat ñu xam ne mbokk adduna du dara ñu xam ne lu mu neex neex day jeex lu mu naqari naqari day jeex amma allaaxira mooy daarul xuluut mooy kër goo xam ne moo sax ba faw nga xam ne boo góorgóorlu la ba yegg foofu liñ leen wax sànq mi ngi leen fay xaar su ko defee ñu góorgóorlu alquran ji suñu borom yàlla ne su ma ko wàcce woon ci montagne da nga gis montagne bi dana toroxlu ba tasaaroo sa xol bu nooy bu tuuti bi nga la waay fexeel alquran di ko yëngal ca mooy di la digal nga def waaye di la tere nga bàyyi moo tax suñu borom ne fa zakkir bil qurani man yaxaafu waid ay yow miy waaraate del waar nit ñi ci alxuraan ku ragal yàlla képp koo xam ne ragal na yàlla soo ne ko yàlla nee na day taxaw soo ne ko yàlla digle na dana dem donte na malheureusement lu ëpp ci doomu aadama yi tey déglootu ni qaala laa qaala rasulullah bal da ngay gis ab bandkat boo xam ne ay millions ñoo ko topp mu taxaw naan man téere bi yàlla bi xawma ci dara loolee mbokk Sénégal rek lañ ko ñemee su ko defee kon nañu xam ne alxuraan moom la ñu war a jëfandikoo góor ak jigéen jéem koo jàng jéem koo xam jéem di ko waaraate fuñ mën a toll falilahi alhamd mi ngi wàccoon ci weeru koor loolu taxoon na sax ba ñu aada woo woon ci jàkk ji bëccëg weeru koor moom mboole mi bëccëg dañ koy jagleel téere borom bi diggante takkusaan ak timis di ci woo képp koo xam ne nii góor nga wala jigéen nga mbokk kon loolu defoon nañ ko laytaay bu rëy bu ñuy waajale weeru koor nga xam ne dañ ko war a waajal ci laabal suñu xol yi laabal suñu jëf yi comme ni ñu koy waxoon ci xol bi passé waaye dañ ko war a waajal itamit ca la nga xam ne mooy suñu man-man yi ngiree ñu mën a doon kuy jege yàlla subhanahu wa taala amul lenn lu la mën a gaaw a jural ngërëmal yàlla lu mel ne jaamam yi nga def ci ñoom teraanga nga fexe yërëm leen bokk ak ñoom la nga am amul lenn lu la mën a gaaw a jegeel ngërëmal yàlla lu mel noonu su ko defee ñu waajal la nga xam ne mooy ndogu yi ngeen daan génne ci koor yi su ko defee ngeen waajal sarax yi ngeen ci daan def waaye waajalaat ku nekk ni wutuwaat téereb alquran jéem koo xam jéem koo jege ngiree loolu doon luy lënkoo ak moom lii mbokk da ngay gis moom la ñuy tuddee suratu qaaf di saar boo xam ne nii yàlla subhanahu wa taala dëxëñ na ci xéewal yu rëy ak waaraate yu rëy ñi ngi ñaan suñu borom yàlla lañ ci joto jàng yàlla na na ko yàlla yeggale suñu biiri xol yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñi nga xam ne dañ koy dikkal ci xol yoo xam ne xol yu sell lañu yàlla na yàlla defal ñu alquran muy loo xam ne nii mooy naatal suñu dënn yi yàlla na yàlla defal ñu alquran muy loo xam ne mooy leeral suñu yoon yàlla na ci yàlla barkeele suñuy mbir barkeele ci suñu njaboot defal ñu ci la nga xam ne mooy muy mujj gu rafet yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci jaamam yi nga xamee ne nii ñoom lay ji wax yawmal qiyaama na leen i'malu ma shi'tum tey moom lu leen neex def leen ci biir ajjana ñaan leen ma lu leen neex ala mbokk jullit gannaaw ba ñun ñëpp nañu bokk julliwaat ci sunu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam comme nañu ko sunu borom yàlla digalee ca mooy ñu julli ci moom إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين